asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi e, déglu xabaar yi am ci àddina bi yëpp e, rawatina diggante Iran ak e, réew mi nga xam ne moo di Israël ak tam ci troisième vague bi nga xam ne ci lañu ñu toll. waaye fokk ñu fàttali tamit ne nañu bañ a nañu tey ndànk ndax lii dal diggante Iran ak Israël xeexu. Gaza bi ak waa Palestine andi ko de beneen affaire la beneen beneen problème moo leen boole boo xam ne bi Iran ñàkk na ci lu mat sept personnes wala huit personnes ci benn bombardement bu ñu amaloon Syrie et puis daaw ba ren ñu ngi koy def ci seen ay position yoo xam ne yi li romb Golan xam nga Golan benn béréb la bu nekk ci Syrie waaye Israël daf na nga woon ca guerre ba léegi guerre 1967 ba la ko nanga woon ba léegi léegi nag pour des raisons de sécurité Israël dafa am ay renseignements généraux yoo xam ne yii ñoo koy jox xabaar yu bëree bari ci ñi Iran di formé ñu nekk diggante Syrie ak eh, Irak yooyu léegi nag comme ak ak tamit Hezbollah bu bu bu Hassan Nasrallah léegi eh, information yooyu nag moo taxoon Israël fan yële ñu génn mu attaqué seen benn makkaan ba fàtt seen ay techniciens iraniens ak seen ay nit yoo xam ne yi ñoo leen yoreel wàllu sécurité bi nekk foofu ci Syrie di def di def formation di former tamit euh, soldats syriens yi boobu nag la Iran wax ne dafay fayu moom lay fayu nii mais cela n'a rien avec Gaza léegi Gaza beneen affaire la ba tax na Israël gis nga fermé na espace aérien am yëpp jamono bii nga xam ne ci la ñu toll mais on Jordanie ci boppam mi nga xam ne moom dafa signé ak euh, Israël ak ay accord de non agression maanaam Jordanie ak Israël duñu mbëkk mbëkkanti mukk ndax daanaka Jordanie yëpp ay palestiniens la ci wàllu xeet mais comme dañoo signé accord yooyu gis nga Jordanie nee na ñoom tëj nañ seen espace ndax drone iranien bu fa jaaree dañ koy bombardé ci saa si la Iran daal di tontu wax ne ñoom itamit bépp réew boo xam ne bii ubbi nga sa espace ci jaww ji euh, ngir may ko Israël ngir mu dal seen kaw bu keroog yow muy ubbi sa sa réew daañu la attaqué fayu ci yow ba noppi door attaqué Israël te Jordanie di rôle rôle naa féeq lay joué fii lu toll nii ndax bëggul drone iranien yi jaar foofu la moo tax waa Yémen seen ministre bi ñu dénk wàllu wàllu information yee wàllu kaaraange gi waaye yeneen wax nañ ne ñoom daañu tàmbali et d'ailleurs sax tàmbali nañ ko di sànni ay roquettes ak ay missiles jëmale ko ci Israël mu nekk nag escalade li tubaab yi di wax escalade boo xam ne bii mën naa indi ay jafe-jafe lool ci zone le mais américains yi léegi nag américains yi euh, dañoo saytaane parce que ñu ngi yóbbu seen technologie bi yépp ñu ngi ko bëgg a toxal ci guddi gi yóbbu ko fële ne moo di euh, Jérusalem li nga xam ne moo di capital ba bon c'est vrai que Israël Jérusalem lañ nangu def ko capital mais Tel Aviv moo nekkoon capital administrative bi waaye ñoom nee ci guddi gi dañoo bëgg a dem yóbbu seen technologie bi fi toll nii Joe Biden xam na ne mbir mi mën naa gudd ay ay ay fan attaque yi di continuer ñoom nag loolu nag Joe Biden moo ko wax sànq mais seen technologie bi ñu déplacé ak seen euh, Euh, moyen de défense aérienne yi ñu bëgg a yóbbu Israël moom ma xaw a jaaxal tuuti te américains yi noppi nañ nee ñu ngir yóbbu seen li ñu am foofee ngir fekk askanu Israël. waa maa ngi leen nuyu bu baax a baax Israël moo tooñ kay mooy géej gi am na ndox loolu mooy lan Israël kay moo yàgg a tooñ Israël yaakaar yaakaar nga kenn ku mu joteel te tooñu la ah bu dee ci réew arab yi ko wër moom yëpp moo leen di tooñ. waaw effectivement foofu la bombardé mais fi mu dafa amoon ñoo xam ne dañoo dañoo cher ay boroomi xam-xam yu aay ci wàllu stratégie militaire ñoo fa te renseignement généraux renseignement généraux yu yu yu yu waasaal yi euh, waa Israël ñoom ñoo ko xam am na complicité xëy na certains arabes yu leen di jox information yi moo tax ñu bombardé ñu bombardé seen bâtiment boobu mais avant ñu koy bombardé dañoo am ay information comme quoi Iran am na lu muy wàcc ci gën leen a jàppale ci wàllu matériel rawatina ak euh, Syrie ak yu demee noonu ñoom comme dañoo ragal te Israël moom dafa mën a dafa mën a tooñ effectivement ñoo tooñ mais loolu noonu la affaire bi demee. salaam salaam information bi mi ngi wax si l'Amérique veut aller sur le terrain pour soutenir Israël nous ne resterons pas les bras croisés loolu président Vladimir Poutine moo ko wax. waaw loolu nag euh, maa ngi topp information bi ginnaaw bi ñu ci jotee jëm euh, koo gën a vérifier daal waaye daal euh, Poutine daal nee na américains yi bu ñu demee nag foofu nag bëgg rek dal ci kaw Iran. kan ku ne xam na ne diggante Russie ak Iran diggante bu retaxar tax la lool dañuy jëflante ci lu bare bari rawat na Syrie ndax état islamique yéen ngi fàttaliku 2004 bi ñu duggee Syrie suma jumul 2004 def naa waaw euh, euh, Poutine def na ci liggéey bu am solo ngir mën a fexe ba euh, ka fay président tey jii di Bachar al ñu fexe ba aar ko aar armeem loolu Russie moo ko defoon ñoom nag nee ñu suñ duggee ci xeex bi ñoom américain yi ñu itam duñ leen seetaan noonu loolu nag Vladimir Poutine moo ko wax maanaam daal Amérique yem ndax bu ci duggee ñoom it nañ cee dugg. léegi ñi fi ñu toll nii tembe la benn communiqué bu jógee Angleterre mooy Royaume-Uni euh, ñoom ay saytaane lañ parce que ñu ngi ñu ngi lu euh, cong gi Iran di tàng di song ni Israël ñoom xanaa tey lañ ko mën a wax parce que ñoom ñu ngi doon jàppale Israël bi muy dal ci kaw Hamas bi muy dal ci bande de Gaza léegi ñu ngi. ñoom tamit Angleterre comme Angleterre moom Amérique yi seen bàyyi ñoom tamit lu ñu def rek ñu def ko topp nañ ci génne communiqué di naqarlu nee nañ euh, Iran li mu def waru koo def waa léegi lan moo tax ba Israël bi attaqué ci Syrie loolu lu tax waxuñu ko woon euh, mu nekk mbir mu doy waar mais comme outil outil si nekk Yémen ñi ngi attaqué ñoom tamit Israël c'est très bien bu ko defee ñu waru boobu boobule Égypte nag ñoom euh, ñi nga xam ne dañoom am frontière ndax Égypte ak Israël dañoo am frontière surtout ci boori Gaza Gaza sax lañ gën a jege ñoom léegi yóbbu nañ seen euh, sécurité aérienne bi gën nañ ko dooleel si ñu toll ni taxaw nañ temm ñoom tamit ngir bañ yëf yi dal ci seen kaw wala daal mu am bettange ba ñoom tamit fi ñu toll nii ñu ngi jakaru ñoom waa Égypte mooy Misra ñi ngi taxaw na ñoom tamit gën nañoo yokk seen kaaraange ci jaww ji ngir ñu drone yi di jaar côté boobu mais nag Égypte tamit comme Jordanie dafa signé ak euh, réew mi nga xam ne mooy Israël dañoo signé ay accord de non défense ba Égypte moom àdduna du yàgg mukk ba mu dal ci Israël Israël it àdduna du yàgg mukk nee ba mu dal ci réew mi nga xamee ne moo di Égypte loolu nag anglais yi ñoo ko defoon kon tey bu ñu toogee ba tey ñuy génnee communiqué naan Iran li mu def du yoon ak naa féq la ndax Iran attaqué na fi siri ba rey fa ay Iranien te waxuñu woon dara patt lañ defoon. Fa Diop loolu lu mën a nekk la waaw defoon nañ ko fi di loolu lu mën a mën a nekk la maanaam loolu probabilité la mën naa ne de man de mën a la déet mukk ci àdduna ndax ñoom fonk nañ Israël fonk goo xam ne gis fii na yaakaar nañ ne Israël dara waru koo laal boppam mënta metti bëtam sax warta fattu lu mën a ne la waaye bu keroogee nag communauté internationale bi duñ ci ànd de def ko ci doole mais buñ ko jaaree ndax xam nga booy attaqué réew il faut mu dem résolution bu jaar ONU te buñ demee ci mbootaayu xeet yi moom li wér di wér mooy euh, waa Russie ak waa Chine duñ ci ànd te ñooñu am dañoo am droit de veto ñooñu nag buñ nee duñ dem duñ dem xanaa lenn ñu def ko ci naata yi ak jaay doole loolu moom mën naa ne mais par force waaye bu dee dañ ko jaar ci ONU dem teg ko ci table ONU pour ñu def résolution pour réew yooyu nga tudd ne dañuy dem attaqué ji Iran di nga dégg réew mu mel ne Poutine mu ne du di ci dal te ñoom buñ ne ci dal du war a nekk ndax seen loi bi may na leen loolu ONU dafa am juróomi réew yoo xam ne yi ñoom bu ne am rek du am France ca la bokk Russie ca la bokk Chine googu ca la googu ca loolu moom mën naa ne li nga wax ni mën nañ koo ragal waaye bu koy def xamal ne ci seen coobare bopp ak doole lañ koy defee salfaañe charte ci ko def